ma la topp te mu ma ko fa amul soxla moo koy wax soxla sooy politique yi jamono ji moo di ngoon fanweeri fan ak benn ci weeru sulet nga dégg daal yi sëy mbër man laa teewal ca péncum ndawi réew ma di assemblée nationale bokk ca ñay nas ak a nocc waaye lu jiitu loolu moo di dem ci élection tey ngir nga doon ca mbër faaw nga matal say parrain le quotidien ne coalition Benno Bokk Yaakaar waxatunu loolu ndax nag ci ndakaaru rek dajale nañ fi lu toll Ba journal L'Info ne dëgg

di président Macky moom président Macky si du quotidien ci élection falum député yi ñaari calcul la cay def bu ca jiitu moo di am ca ndam ngir am majorité ca assemblée nationale di pencum ndawi réew ma waaye te defab taxaw seetlu ci élection présidentielle yu 2024 te yéenekaay bi nee na lii lépp dara du ca yomb ndax nag gaa yi fari ci ku jëgi taxaw nan temm ne ko loolu du fi amee leneen lu yombul ngir mu wax ca moom président Macky Sall moo di ndax dina def ñetteelu mandat am déet bés bi la journée wax juraat na xel ndax nag yéen i kaay immédiat e bi nee na Macky Sall lu aju ci limitation mandat yi li wax moo di ci déndu Afrique liñ fiy utal njiitu réew ab app mooy waral sumb du mën a yegg lii tax ba bés bi la journée waa ji ndax xelam nekkul ci def ñetteelu mandat las quotidienne lu ci mën di am daal moom waa ji bëgg na ndam ca bawal ndax nag yéen i kaay bi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall li mu xamle moo di ne dina defaraat stade bu Mbàkke defar tali ba bàyyeekoo tayif utali Sadio ba noppet jël ay ndaw yu fekk baax ca Touba utal leenum xëy susu aane ca bawal kay tey ba fii PDS moo fa doon am ndam tey it ñoo ngi ci waajal gi ndax nag Cheikh Abdou Bara Mbacke dolli dem na fekki leen boobaat fekk na ñoom waa PDS ca Géejawaay ne li ñu bëgg moo di Karim Meïssa Wade ñibbisi waat ci réew mi ci Vox Populi moom njiitu réew mi di président Macky Sall moom la fa Guy Marius di waxal dinaan ko moom Macky Sall bu mu wàcce boppam bay tolloo ko naan day wax ci contrat bi dox ci digganteem ak mairie bu Dakar la asu soxna faato woon Direct na ci léppit nara leer fukki fan ak benn ci weeru mai bi nu jëm lii tax ba direct news xëy samp ca ay laaj ne ndax procureur dafa bëgg a dalal yëf yi ba tax mu bëgg a jël bii dogal wala ndax gars yi dañoo bëgg a dellu gannaaw ndax pression bi acteur de santé yi teg ci seen kaw ndax bii dogal bu jàllee astu soxna fa mu tëdd dina fa tàlli direct news yokku ca ne ndax nekkul ne yàlla sunu borom mooy attekat bu mag bi enquête yéene kaay ne lu ci mën di am da ñoom waa kër docteur war na noo xoolaat seen bopp ndax nag erreur yi ñuy def bëri na ñu bëri ca liggéeykat yi liñ leen di joxañ ci ñàkk kersa moo jamono ji doo toog lu yàgg te déggoo ku leen porté plainte direct news ne ca hôpital Nabil Souker mbir muy méngoo ko ma xewoon ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ga ca moo fa am ba tax porté nañ fa plainte ñaari agent le soleil national ne grève bi am ci wér-gu-yaram moom léegi tey mu dakk ndax nag yéene kaay réewum Sénégal bi nee na nguurug Sénégal ak syndicat yi ko séq talaata bii nu jëm dinañ xaatim ab déggoo li ñuy dégg boobaak léegi ci réew mi moo di faat bakkan yu tawut a dakk libération yéene kaay dëkk ñaari gaar juróom-ñetti bâtiment bëggoon koo rendi gannaaw ñaari ayu bés yuñ ko doon seet takk derrière teg nan ko loxo libération yéene kaay ne loolu ma nga xewe ca daaru salaam ga ca Thiès daaru ci bugga ca jaxaay les échos yéene kaay nee na ñaari waxambaane ñoo fa doon xeex kenn ka jam morom ja ba mu jaare fa ñàkk bakkanam li ko waral moo di ne jigéen gun fa doon xëccoo